kër Serigne gi jàkkaarloo juma ju ji delluwaat na di dalal mbooloo mu takku ginnaaw bu Serigne bi fatoo bay soogu ubbi ajjuma ji fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2019 ci la Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké dellusiwaat ci kër Serigne gi ginnaaw bi muy jullee ajjuma ba noppi foofee mbooloo mu takku doon ko fa xaar. di teewlu njàng mu am solo mu sëriñ Mouhamadou Mountakha Gueye doon def man qaada maali qasama liya wa durri sarama hibaatu rabbi zil kamal taquudu kulli bi jamal wa qaada li abra kamal mam ji iraqil ulama bokk na ci bokki taalibe yi takku yi fa dikkoon di joxe seen ziar jëwriñu daara yi ëpp ci ñoom bàyyi ko ci biir réewum Sénégal niki daayira bi jóge ca Sibassor. man Cheikh Abdoulaye Maroon laa tudd maa yor kër Serigne Touba gële ca Sibassor maay président fédération national daayira séeréer de Sénégal Muqaddimatu Xidmatu Suxra maay représentant itam ci arrondissement Ngothie googee. fédération bi nag demoon na ci juróom-ñetti téeméeri daayira ak juróom-ñaar fukk. ak ñeent loolu daal limoon nañ ko ci ñi am Pastef waa Touba itam desuñu moo xam daayira jigéen ñi la wala góor ñi ba ci sax ndaw ñi ni ki élèves yi nekk ci centre de formation bu Daaru Xuddus ànd ak seen njiit di Serigne Bassirou Gueye mu indi leen ci sëriñ Mountakha. ñu ñëwoon fii doon siyaare Serigne Mountakha nag euh, indaale suñu àddiya ma ànd ak soxna yi takku ñoo xam ne maa leen jiite euh, ñoom laa fi indi ñu indaale àddiya jooju. ngir addi soxna jaara bu sa ndax daara ji soxna jaara laa ko tudde euh, ginnaaw damay liggéeyal jigéen ñi ma tudd ko soxna jaara ndax ñëpp mën ci royale ñu royale ci jukkoy soxna jaara ak jëfini soxna jaara ak doxini soxna jaara loolu moom ma tax a jóg diir bi it dana dajeek lenn ci daayira yi nekk ci bitim réew di jàpp ngir ñoom itam joxe seen ziyaara ci sëriñ Mamadou Mountakha Mbacké xalifa général des mourides niki daayira bi wakaan xaqan ña nga bàyyi ko ba Malaga ca Espagne di ño xam ne nag yàgg nañoo def ziyaar yu ñu ci ki fi toogal sëriñ Touba. di doom sëñ Mbacke Ibou Kalsane jógee ci réew mu ñuy wax Espagne ci région bu ñuy wax euh, Malaga taarib sëñ Tuubaa bi tudd Wakkaan Akkan bi ñu dikkee jokkoon nañu ak euh, ñu nekk ci sëriñ bi ñu jox ñu ndigalul xamal nañu kat sëñ bi daa fatu waaye waxtu ubbee rek dana jàppandi jamono yooyu jokkoog ñoom di jokkoog ñoom ba àgg ci nag fan yii ñu wax ne sëñ bi ubbi na ci lañ jox ndigalul mën ngeen a ajuma bu njëkk bii ci ubbi gi loolu moo war ñu fi tey jii. di kër Serigne Touba dundaat lool ci wàllu mbooloo mi fiy daje njàngum xasida mi ak mbégteem dongo yi amaat lool cawarte ci jàkkaarloog sëriñ Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides. ñoo yor daayira soppe Serigne Mountakha ba seen a ñëw jëbal ko Serigne Mountakha di ñaan ñu jëbal ko kay ati at ba mat téeméeri at ak yu topp ba seen liggéey Serigne Touba rek moo ñu ñor waaw ñu ndax ay ndaw la nag di ñaan ci yàlla. Cheikh Mountakha yàgg fi lool te wér. li gën a fës ci képp koo laaj dajeek moom mooy mbégteem ak cant yu muy jottali sëriñ bi booleeg di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Seexul Xadiim mu matale ko te dong yépp ànd kook moom.